dañuy maanaam dañ koy def ngir lan ngir daja dara jaale ko si mën xaa ak yëkkati ko liggéeyam boobee ak di ko wan ne ko noonu sa bëgg rek lan doon dàkk gannaaw soxla boo ko soxlaatum dara kon ñi ngi sant sëriñ bi bu baax sant mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo sës sëriñ bi nga xam ne ñoo koy guddil ñoo koy bëtëgal te taxawaay bi rafet melaw yu rafet nga xam ne kenn ku ci ne bu bu ñu la gisee rek dana tax gën a xemmemaat jëm si jëm ji nga xam ne moo la ci biir te loolu bokk na ci lii dara jàll kilifa kon ñu ngi leen di sant sëriñ bu baax baax mu mel ne waxtu waa ngi dox dañuy jox seen bi rek bu ñaanal ñu dafa am laaj bi may faral di laaj ba léegi am ku ma ko laajal te jamono ji léegi xam-xam bi dafa bari xasida yi itam gëstu yu bari ak yu baree bari ak ajjale bi muy sunu kilifa gu tedd googu di Seydina Nooru Daara yi ñuy wax ne ndax Nooru Daara yi day téere téere boppam Ahmadu Moxniyaan di téere boppam yaa yaa sal wu jooji yaa sëy di téere boppam ndax noonu la demee dama ko laaj ñu baree le ma tontu woon rek laa bëgg a yëkkati ci kaw ci kanamu sëriñ bi mooy Ahmadou Mouhniyane day téere boppam la yaa la loolu daa lay téere boppam la waaye sëriñ Tuubaa bi moom ñetti téere yooyu moo leen boole sañes naa jàng Ahmadou Mouhniyane ber naa jàng yaa sëriñ yi ber ko waaye sañes su la jàng loolu daa leen di bàyyi am na ko mosal ak sëriñ Saliou ki teggee na daa wax ne man de leen di xam ñoom laa fekk mu ànd moo tax du ma leen tàggal kon rek waaye ku jàng loolu daay ba mu jeex la ca des a yëkk te ñu ngi nii wax rek ci doon yi fekk ñu jàng yi ba rahmatulah si bi jàll bi yaa sëñ su ma nekkee teg teg topp dina mën a fekk naa wala kon noonu rek la de maanaam loolu ak laabira la ngir ñu xam ne xaside yi da cee bari yoo xam ne borom xaside yi moo leen seexale mi ngi mel ne mi nanu baaxu xadim ak wa doonu yoy sëriñ Tuubaa mo len seexal te ganna bo len len di rabale len fene su len a tàqal kon nañuy xam lolu diko xamé bu baax a baax kon lolu rek lañ doon leral ci xasida yi yo xam dal nañ ci gëna téy bu baax a baax te ñu ñu fekk ñu and rek ñu bolé len sunu sang bu tedd ba Cheikh bu Mbacké daal di wax ne maanaam fonk kóllëre dëgg-dëgg yegg na ci ab gura sax waree su koo ndax ñaar ñoo fekk du ànd démb nga xëy di leen xaajale moom daal wóoru ku ko gannaaw ku koy ci ab gura kon ay xasida dafa ñuy wax nan bàyyi xasida yi li ko sa bi tàggee mag ñi juumuñu luñ luñ tegale rek noonu la waaw te yoonu sëñ Sall daan wax ne yoonu sëñ tubaab di yoonu sos di yoonu sos yoonu sof la sof nag lañ dafa nekkoon rek ci nga ñëw sof kon noonu sof si si mag ñeemoon rek sëriñ bi nee na mi ngi sant murit yëpp waaye rawatina murit yi nga xam ne bi leen yëgalee bis bii teg xéwal ci seen loxo dox nañ ci doxin woo xam ne kawe na jot buñ ci tuddee sëriñ Cheikh Seck rek ak waa Diallibatou Barakhib mooy mooy sëriñ Cheikh mooy waa Daara Diallibatou Barakhib waa Daaru Kodosi